entre intellectuels yi nekk ci ginnaawam mais duñ ko déglu bu ñu leen conseillé wala bu ñu leen waxee dara duñ ko jëfandikoo du ko jëfandikoo. léegi yow fan nga teg nii président waa du déglu loolu foo ko teg. waaw mais loolu ci ñëpp a ko xam. man mii recevoir na ma man mii yow xama ko. non non ah en tant que sénégalais dëkk Sénégal. fii xamuloo loolu doo lire bon ça veut dire que tu es mal informé. Hmm. boo ko xamulee journaux yaa ngi koy wax chaque jour. Ah, nit ñi di ko wax bon tu es très mal bi président bi nga yow président bi nga bi mu la recevoir dégluwu la. déglu na ma bokkul bi ma recevoir dafa ñëw xool. recevoir ma Washington boobu y avait plein de trucs ñu nekkoon ci ginnaaw foofu noonu ay kàngam rek a fa nekkoon ay doc y avait professeur ay intellectuel docteur Lamine Ba hmm. ambassadeur ma nga fa woon kon président ay ministre euh, procès yoo xam ne dëgg-dëgg mhm. jàll président dafa mun déglu Abdoulaye Wade da doon déglu nit ñi est-ce que dina ko jëfee est-ce que du ko jëfee loolu beneen affaire la mais président Wade boo toogee moom di ko wax wax ko lu wax ko lu ñor président daf lay déglu est-ce que nag li ngay wax am na bopp am na genn parce que comme yàlla daf ko may xel su fekkee wax nga ko loo xam ni hmm. xam na ni waxoo fi dara président dootu la déglu du la may sax nga yeggali mais président dafa doon déglu ça loolu moom euh, c'est c'est vraiment un très mauvais procès qu'on lui fait mais dafa am benn affaire bu ma jaaxal ci sa ci sa article bi yow da nga hmm. ni intellectuels yi hmm. euh, dañ leen war a xàllal yoon parce que euh, ñoom Euh, Macky Sall loolu mooy le grand défi de son nouveau régime moom mooy mu intégrer intellectuels yi yi nekk ci ci bitim réew. déet ñëpp intellectuel bu ma ko waxee rek ñëpp la. mais yow sa RIS bi moom mooy. retour waaw mais xam nga boo. Ah, bokk retour mooy xanaa ñu nekk bitim réew. ñu bitim réew mais boo liiree ba ci suuf ni nañ la ne. Hmm. ci suuf ni nañ la ne nañu boole intellectuel yi lan mooy def ko benn synergie bu ñu nee intellectuel intelligentsia san ne veut pas ni ñi nekk bitim réew. sa liggéey yow moom mooy yow intellectuel yi nekk bitim réew ngay wax pour ñu indiwaat leen. pour ñooñu indiwaat leen ñu boole ñi nekk fii nii ñu boole doon doon benn synergie intellectuelle jëriñoo réew mi. waa léegi intellectuel yooyu Eh. intel intellectuel yi nekk bitim réew mais ñoom ñoo fa téye seen bopp Sénégal du Corée du Nord tey doomu Sénégal bu mu neex mun nga dikkaat ci réew mi ne da ngay liggéeyal sa réew am loo fi sanc am loo fi def kenn terew leen ñu ñëw kon retour boobu ñuy wax mel ni dañ leen di mel ni dañ leen di forcer mel ni tey fii ñoom bu ñu ñëwul dara du sotti mais sëñ bi loolu moom moom moom mënees see ànd. ah déedéet wax ma de mais lan moo leen tere ñëw bi wax dama la ne. mais nañ ñëw. déedéet moom laa la wax bu ñu naree ñëw dañu war a am ay mesures d' accompagnement wax naa la. mais ku leen di accompagner. ah suñu état fi fi mu nekk. état moo ko moo leen di accompagner. fi mu toll nii xam loolu ma tontu loolu kay sëñ bi. Mm-hmm. moo leen di accompagner. Mm-hmm. bépp sénégalais buy tukki. mbébétam mooy ñibbisi defar réewam toog ci wetu njabootam. te am na ñoo xam bëgguñu ñibbisi. te bul waxati lu mel ne ku mel ni yow waaye ñeneen ñi ñi ma nekk ah man maa ngi nii ah kay ñu mel ni yow ñu mel ni yow bëggoo waaye ni ko bëgg hmm. man j'en fais partie ñu mel ni yow ñoo bëgg a toog foofu man maa ngi nii ah déet da nga ko sa xalaat la man ak moom ñoo nekkandoo woon foofu ma man ñibbisi na ñu ngi woon Atlanta man maa ngi Washington mais man ñibbisi na xam ko bu baax mais léegi cest à ah. man dafa am benn mbir boo xam ne man décision personnelle la ko c'est l'initiative personnelle et loolu la ñuy xaar nañu ñëw l'initiative personnelle boobu noonu il faut que mu am des mesures d'accompagnement moom laa la hmm. wax cest xam naa lii lii na lii Tunkara bëgg wax mooy pourquoi ñoom ñu war leen neexal pour ñu ñibbi alors am na ñoo xam ne ñu ngi fii <laughs> jàng nañ ñoom lu ñu jàng ñu ngi fii seen réew di di di liggéey euh, nekk ay compétences pourquoi toujours rek ñu war a gëstu ñu nekk bitim réew comme si nañu am complexe ñu nekk foofu alors que am na ñu ñu valable ñu nekk fi loolu dama ne ñi nekk fii laa wax waxuma ne dégg ba wax lan la signifié ñi nekk fii ak ñi nekk bitim réew ñu booloo nekk benn mais loolu ñun nee nañ amuñu problème ñoom nañ ñëw c'est-à-dire yow li ngeen li ngeen di woote tey ne état daf leen war a accompagner hmm. ñun loolu mënuñu ko yaakaar si intellectuels yi nekk bitim réew lu ñu yaakaar si ñoom mooy hmm. ñu ñëw indi seen xalaat. Mhm. indi seen doole. Mhm. indi seen mën-mën indi seen kàttan. Mhm. initier ay ay activités ñëw créer ay affaires mais pas ñëw xoolal yow li ngay wax ci sa article bi ne non bu ñu ñëwee Macky Sall dañ leen war a dafa war a lever barrière protocolaire yi pour ñu recevoir pour mu recevoir leen. pour ñu euh, voilà pour ñu mën a. mais lu tax ah, mais lu tax ñu lever barrière protocolaire yi pour ñoom. yenn non pas certaines barrières protocolaire yi ma wax moo di par exemple. mais tout ay sénégalais lañ lu tax rek parce que yow jóge nga jóge nga jóge nga euh, États-Unis nga ñëw rek ñu lever barrière protocolaire. non loolu kenn du ko def non du laa waxuma loolu. man man man sama bopp man je suis pas juste. Ah, mais non loolu nga loolu nga bind fii laa lever ni nga sa dégg-dégg moo di. Hmm. sa dégg-dégg yow moo di nañu lever barrière protocolaire barrière protocolaire yi mooy que ni. Hmm. ni ñu leen di ni ñu leen di buntu xatalee

état surtout ku jógee États-Unis comme yow exemple bi ngay joxe nga xam ne foofu vraiment c'est le libéralisme li ñuy wax mooy moins d'état mieux d'état mais pourquoi yow nga war a xaar état bi jox la dara alors que yow yaa war a ñëw indil état. mais ñu ne ak dañu ne lu tax moom dafa ne lu tax bu ñu bëgguñu ñëw wala bu ñu ñëwee du duñu mën a def loo xam ne nii kenn ma ne ko il faut que ñu am mesure d'accompagnement. mais am na mesure d'accompagnement yi am na ma jox la ma jox la firnde ma jox la mesure Mhm. soo ñëwee Sénégal. Mhm. mais 48 heures. APIX guichet unique la mu maanaam kayit yi nga soxla yëpp foofu lañ la koy lijjantilee mhm. doo demati léegi tribunal doo dem impôt doo def dara guichet unique ñu defal la lépp 48 heures sa entreprise taxaw. parce que ñun yow li nga wax fii ne waaw euh, dañ leen war indi jël leen dugal leen ci gouvernement bi non ñun soxlawuñ leen ñu ñëw dugg ci gouvernement xam nga lu ñu soxla. ñoom ñu ñëw indi ay idées créer ay emplois ñëw in boobu nga wax. ñu ñëw. indil ñu lu bees mais pas ñu ñëw di concurrence ak ñun di dugg. concurrence wuñu moo une synergie kay mooy loo xam ni da nga déggoo. sama sëriñ mais kon kay léegi soxla wu. boo amul synergie doo déggoo. xam nga nit ku nekk da nga war a déggoo. mais kon y' a pas de problème. parce que yow li nga wax retour de l' intelligentsia là. waaw mais nañu ñëw on les attend. y' a facilité supplémentaire à faire tous les sénégalais sénégalais yëpp ñoo yem tey. Macky Sall warul ma Massamba Diop parce que jóge na Malawi te man Mamadou Sy Tounkara maa ngi fii euh, waruma recevoir ma man maa gën a nekk si naaj bi que que Massamba Diop moom. ah bon ci naaj nga nekk yow. ok looy looy xaar dem ci kër gi. donc ah, bu fekkee loolu li ma bëgg wax lu simple li ma bëgg lu simple la. Ah, wax dëgg yàlla mooy mooy problème mu retour de l' intelligentsia. Mhm. ne se pose pas au Sénégal. si parce que xam-xam xam-xam bi am nañu am na waaw nit ñi ñëw boo gis li muy laaj mooy euh, ban problème nañ leen amul barrière voilà boobu si am na barrière moom laa koy wax barrière yi moom laa koy wax nee naa ko barrière protocolaire yi wala boo ñëwee pour ñu intégrer la mooy problème. mais intégrer la fan. bu fekkee da nga bëgg créer dara. nee naa la appui am na peut-être benn contribution parce que man j'ai eu li muy wax nii j'ai eu à le vivre. quand je suis revenu de France c'est-à-dire que le problème c'est pas au niveau des investisseurs ou des créateurs d'entreprises hmm. c'est au niveau des gens qui sont ah. amenés à travailler dans des secteurs qui appartiennent à l'administration très bien ou par exemple devoir intégrer la fonction publique ak yooyu ci cas yooyu la hmm. par exemple tey di nga gis un médecin qui arrive nga gis koo xam ne peut-être xarañ na ci wàllu médecine ou professeur la hmm. seen intégration niveau boobu la du niveau création d'entreprise. très bien hmm. parce que man je peux en parler parce que peut-être dund naa. man hmm. mais foog naa xalaat naa ne moom apport am niveau boobu la. c'est au niveau tey état bi jox leen ay facilités pour ñu mën a hmm. intégrer la fonction publique peut-être dans le privé ils vont déposer leur CV mais peut-être côté boobu lay waxee. mais tey mais tey man lu ma lu ma mën a jaaxal mooy. nan la kenn nekkee biir Amérique. jàng comme yow dem nga ba am doctorat en informatique def ñetti master mais lu tax yow boo ñëwee doo ñu indil valeur boo xam ne tey da ngay multiplier ñun as tuut suñu am mais nga ni danga nga bëgg intégrer administration Sénégal pour ñu lay fay salaire administration Sénégal man loolu laa mënul comprendre. de fekk bëgg sa réew être eh? patriote. mais être patriote xam nga xam nga def si bokk la parce que sa xam-xam déglu ma ma wax la sa xam-xam. Hmm. li ngay toog bitim réew di ko liggéeyal nit ñi. di ko liggéeyal tubaab bi muy pare ñu koy jël étiquette bi duñ la ko jox yow tubaab bi lañ kaa jox jël sa xam-xam yépp jox ko tubaab bi daal di ñëw kenn du la crédité en retour man j'ai été victime de ça ma ne et pourquoi pas et pourquoi pas ma dellu sama réew victime victime lan yow lan victime lan par exemple da am yenn institution yoo xam ne ni da leen di defar seen yëf en consultance par exemple en marketing wala consultance en informatique ak affaire yooyu yëpp boo ko jëlee dañ lay ñëw demandé la sa avis jox la ay suggestion nga jox leen ay suggestion ñu jël ko defar ko nga bind teg ñu jël ko approuvé ko buñ ko approuvé comme yow ci sa bopp nit ku ñuul nga da nga am accent loolu la ñuy wax les trois M les three minors loolu lañ koy wax nit ku ñuul nga am nga accent dëkkoo fi étranger nga pour ñu jox la yenn crédit yi dafay xaw a jafe hmm. ñu jël ko dëppoo ko ñoom seen bopp hmm. nga nekk ci suuf di liggéey rek hmm. xam-xam bi ñu koy jëriñoo audience bi ñu nekk yow ñoom tubaab yi di ko jëriñoo et pourquoi pas nga jël ko investir ko sa biir dëkk. en tout cas foofu lay waxee man lu ma wax mooy. Hmm. sincèrement. waaw waaw ñu daaneel si loolu moom mooy. Hmm. Euh, diaspora bi sénégalais yi fa nekk. ku am yéene toog bitim réew. Euh, loolu kenn mun la ko teree sa dégg-dégg la sa gis-gis la. Euh, te am nga si sañ-sañ tabarkàlla. surtout que président Macky nee na quinzième région diaspora bi la koy na ñi bëgg a toog foofu. ñi bëgg di yónnee xaalis ak yooyu. waaye defuñu ko loolu amuñu benn si benn problème. Mm-hmm. mais ñi bëgg ñëw. dañu war a xam ne que mais Sénégal soxla na leen. Sénégal soxla na leen si ñu ñëw tey yokkuñu si wàllum xam-xam wàllum xalaat surtout wàllu création. pas ñu ñëw naan dañuy dugg ci administration. exemple la yow bu nga jël da nga jël egg loolu noonu techno c'est un exemple. voilà c'est un exemple yow da ngay da ngay foncontre ni ko nit ñi waxee. foncontre wala foncontre ngay wax moom ngay def yow. sama maam daan na ko wax yow da nga foncontre li ma bëgg wax mooy li ma bëgg wax mooy. waa diaspora bi solo bi ñu solo solo bi ñu am moom mooy ne saa yu ñu fi dikkee ci dëkk bi. Mhm. su fekkee ne que ñoom seen yéene. moom mooy yokk dëkk bi. Mhm. si wàllu créer emploi parce que mhm. président Macky Sall soxla na ko ah nee na 500000 emplois bu créer donc soxla na leen yéen waa diaspora bi. Ah. mais soo leen ñëw créer emploi amul benn barrière 48 heures mun ngeen taxawal seen ay mbir. ba pare commencé suqal suqal ci. Euh, suqal donc xam naa ne euh, juste avant ñu ñuy conclure xëy na bu dee baaw am am nga si yokk si si si lu muy wax. waaw en fait euh, li ma ci yokk rek mooy ay idéem quand même. vraiment ay idées yu yu pertinente la yu am solo la ndax euh, ku nekk bitim réew yàlla may la nga jàng ba am say lijaasa ba am xam-xam euh, nga war a ñibbi sa réew war a mën indi dara sa réew loolu moom c'est vraiment une très bonne chose mm. waaw donc euh, si demande donc aux gens de la diaspora de revenir pour amener leur pierre à l'édifice loolu moom vraiment lu lu baax la waaw donc maa ngi koy encourager ci li def euh, à essayer quand même de de de convaincre les nest pas à venir travailler pour leur pays. donc man foofu rek laay waxee quoi. donc euh, je rappelle que vous êtes euh, résident à Takoma Park dans l'État de Maryland aux États-Unis que vous êtes titulaire d'un doctorat en informatique et d'un MBA. Donc, euh, on vous remercie, euh, nous vous remercions d'être, euh, d'être passé sur ce plateau. Euh, comme euh, vous avez la parole, Bao. Donc, comme nous l'avons wax sànq biennale bi defe naa mois prochain le lay lay tàmbali. Mhm. donc yow xam naa yaa ngi préparé wu bu baax pour biennale bi donc mën ñu expliquer un peu yow yow si sa art ba ban ban domaine parce que gis nañ tout tuuti ay. si ay ay mhm. donc yow si si ban si ban wàll si si si peinture yow. yow nga nekk. waa en fait euh, artiste là artiste peintre là bon maa ngi d'abord liggéey depuis disons une trentaine d'années euh, trente cinq ans ci art bi euh, donc euh, suma peinture euh, euh disons c'est une peinture disons éducative hmm? je peins. donc des tableaux yoo xam ne c'est des tableaux des thèmes éducatifs hein, qui parlent de la famille donc qui parle de l'environnement donc qui parlent aussi de des contes n'est-ce pas de les valeurs de valeurs yi nga xam ne euh, war nañ koy inculquer suñuy doom nest pa wala société bi war nañu war nañu war nañu inculquer ay valeurs donc ci yooyu laay pratiquement liggéey donc je suis sahélien déjà donc euh, je suis aussi Pulaagu parce que euh, souvent même damay wax naan man je suis l'artiste Pulaagu c'est-à-dire euh, euh, je suis Peul donc euh, sumay suma peinture en réalité damay toucher trop sur sur sur le Pulaagu donc sur l'ethnie Peul mais tout en